gannaaw tëj ga ñu ko tëj ci këram moom leader bu Pastef bile di Ousmane Sonko amalub vidéo tey jile ñu tuddee que une journée avec le président Ousmane Sonko mu nekk bés boo xamante ni dañu ko jagleel Ousmane Sonko mu daal di wane naka lay dundee gannaaw situation yi nga xamante ni nekk na ci jamono ji moom leader bu Pastef bile di Ousmane Sonko dafa mel na ni tëj ga nga xamante ni tëj nañ ko ko ca këram daf ko gën a may temps ngir rek mu daal di gën a mën a liggéey ci projet bi nga xamante ni am na ko ngir rek daal di koy doxal ci miim réew senegal moom Ousmane Sonko gannaaw bu xëyee yëngatu ga nga xamante ni dana ko def jëm ci wàllu tàggat yaram maanaam sport gannaaw bi le nag dugg biroom jàng alxuraan ñaan ñaanal ñi nga xamante ni itam dañoo génn àddina ak ñi nga xamante ni dañoo dee ci combat bile waaye tamit ñi nga xamante ni ña ngay dund gannaaw bile nag moom Ousmane Sonko dina yër lenn ci ay livre livre yooyu lee tënk ay xam-xam ci fànn yu wutee gannaaw bi lee moom Ousmane Sonko bokk na ca la nga xamante ni dina ko def génne machine am jublu ci liggéey yi gannaaw nag tëj ga nga xamante ni tëj nañ ko ko foofale ca këram daf koo gën a may temps mu daal di gën mën a liggéey ci projet bi ak mu ànd ak waa Pastef moom Ousmane Sonko ma ngay xamle ni daal di nañuy bind seen projet boolek ak projet ba nga xamante ni moom la ñu amoon ci atum 2019 loolu le ñi ànd si ak ay nit yooyu yoo xamante ni seenu xam-xam dafa màcc bu baax a baax ci mbir mu ne maanaam ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllum pàcc dañoo jox jokkoo ak ñoom ci projet boobilee waaye ñi nga xamante ni itam seen xam-xam dafa màcc ci wàllum pétrole ak lu ni mel itam seen xalaat ma nga ca projet boobilee ak yeneen i mbir yoo xamante ni moom leader bi la di Ousmane Sonko daxañ na ko ci biir mu mel na ni nag tëj ga nga xamante ni tëj nañ ko foofu foofulee daf koo gën a may temps waaye tamit may ko bu baax mu daadee dallu gën a noppaliku ndaxte kat moom leader bi la di Ousmane Sonko wute na bu baax a baax ak semaine ci ginnaaw ni mu mel ni ki tey jillee moom mi le nag di Ousmane Sonko gannaaw bi le daal di ne anniversaire képp koo xamante ni patriote nga te nekk ci miim réew Sénégal mu nekkoon benn petite vidéo boo xamante ni moom Ousmane Sonko def na ko doon wane naka lay dundee. gannaaw barricade gi nga xamante ni def nañ ko foofale ca këram naam sax moom ma ngay xam ne ni ba tey nekk loo xamante ni lu jaadu la dafa war a jug barricade